ahasubillahi min seytaan rajim ginnaaw a sant yàlla julli seen suñu ñaari waajur xam nga di sant suñu mbokk yëpp rawatina bawal gën dëkk juddoo fa yaroo fa màggee fa seen waa bawal gépp bàyyiwunu kenn xam nga rawatina waa réew maawo réew maawo gépp bàyyiwunu kenn xam nga waa tubaatul waa reefan xam nga waa kër samba waa jokaan xam nga waa nduuréen xam waa newraan bàyyiwunu fenn dëkk yooyu yëpp nooy sant ñëpp di sant waa seew sama dëkku yaay di sant waa seew tin baax waa caacaaw bàyyiwuma kenn waa ñu seen bëri waa seew sama dëkk yaay maa ngi sant ñëpp sama yaay foofu dëkk maa ngi sant waa seew yëpp xam ne di sant waa gàtt di sant sama mbokk séeréer yi xam nga waa Fatick Kaolack xam nga waa Gandiaye maa ngi sant bu baax a baax a baax xam nga di sant waa Sokone di sant waa Passy waa Dionewar maa ngi sant bu baax a baax a baax a baax xam nga di sant waa Fimela di sant waa Niakhar bu baax a baax a baax bàyyiwuma fenn dëkk séeréer yi may ñaanal ñëpp maa ngi sant bu baax xam nga di sant waa Saloum Ili Saloum bi maa ngi sant ñëpp di leen gërëm bu baax di leen woo si combat bi pour ñu ñëpp jàpp si waaw waa Kahone nag waa Kahone maa ngi sant ñëpp bàyyiwuma kenn yi ne ñëpp maa ngi sant waaw safar jagataay waaw di woo mais kan mooy Boylo waaw ah, Boylo benn Boylo rek benn booy bu juróo bawol bu ko fee ak lii incha allah waaw Boylo def nga ñaata combat Boylo def neuf combat waaw huit victoire laa def benn machine yi waaw yaakaar la maag tafaa xarañ la waaw tafaa xarañ benn waaw waaw victoire yi kan ak na ma daan naa kii nii booy Pape Diouf la ma ju daan waaw la ma daan waaw mu la ma ju daan sunu saam Iba Mar Diop Iba Mar waaw Iba Mar waaw waaw waaw ci na daan naa junni daan xam nga booy booy booy kii kii la quoi tëgëj waaw mooy par tur quoi non Lac Rose ak Lac Rose Lac Rose bu fii parcelle xam nga Lac ak booy booy kii booy waay. da nga daan daal daal di fàtte booy. man daa xam man boo tab la man mu xasee ba daan bëri nii barke Mouhamad dootuma la xam sax. billaahi ma daan ñii ku ma ci dajale ni ma xam naa ko bëri naa moom sax ma baaxoo wax non non billaahi sama combat yi nga bëri nii billaahi walaahi ku ma dajoo des fois ma ma booy loo xamee ma mën naa ki mën ma mën daanoon doomu jalaaw laay wax nii doomu jalaaw bëri nan waaw a booloo kaay xamee nga ma man ne nga man nga ne ko yee maa ngi door xamee billaahi waaw doon naa doomu jalaaw doon daan doomu waalo mais euh, Boylo combat xaw na tegloo mu nekk ci benn série benn dynamique yaay di ko bàyyi xel mais ñu jékki-jékki affaire yi mel lu xaw a taxaw xaw a lan la non non chaque at ma chaque at na ma bëri nag sa ko bàyyi xaw a sori mais chaque at ma bëri ba ma commencé ba léegi mosuma ne balaas chaque at dinaa am benn combat wala ñaar mais nag xam rek ñun du ñuy wàcc si lépp simple bi te gars yi moom boo booy commencé mbëfat ne ci simple bi duñ la bëree duñ jël yow te man nag simple bi yàgg naa dama ciy bëree xam nga dama dama nii rek moo tax gars yi commencé bàyyi xel mais man moom damay dugg si bu baax a baax a baax a baax waaw. yaa ngi jëm ci combat muy sa digganteeg euh, Boy Malika xam nga booy Malika wala xamoo ko. Boy Malika waaw xam naa ko xamul am rek xam ni ko gis moom xamul am nga xam xamul am bi laa ko xam rek waaw. waaw la ko jël la suwaa la wala loo taamu la wala lan la. non du gisuma lu tam xaw ñaari xal lan te combat bu mu taxee ba léegi li ci dégg moy combat bu combat bu tax ci année baa ngi noonu waaw kon kon combat boobu jaadu na won def grand combat barke yalla combat bi ñëpp grand combat ni wax ñëpp aduna ko wax na combat bi mooy grand combat bi ndax combat bi man dama gëm moy tax ci combat ci année bi bi combat bi moo ci dax ndax moy combat de l'année la gëm man amon na fi combat de l'année dama koy amat waaw léegi lo japp ni mo tax combat bi moy tax ci combat bi non combat dama neex dañoo xam ne suñu ñaar ñëpp la ndax jambar la te man tam jambar la ndax gisee ni combat am day neex man tam sax noonu combat combat der la doon ñëpp ay der na ñaar der na suñu leen boole combat bu du yomb moo tax gars yi jàpp ne combat bi day neex quoi waaw combat neex lay doon. mais xam nga ne daanaka technicien la xeexkat la bërekat la. mbër la lépp la mais billaay walaay daa mbër te yu bëri xamuñu daa mbër nag te bu ñu ba pare ba taxale ko ba ku koy dem sa yoon. ba gars <laughs> na contact de damay contact moom bu gars yi jóg bàyyi na fi barke Mouhamad leer laa man moom bëre moom. plat yëpp laay pare man ma ak suñu kutsu ñu ku ci ma ni Talla xam nga suma nijaay dafa tin si mbokk Abdou Fall gars yi ak Aada Boy Maar mii ñu saa jiitin Alioune Ndoye Dieng naa ñun booy ñëpp ay ñu saa ko jox dañuy waaj lépp ñun. ay booy maanaa yi nag xam nga ay booy booy loolu numéro 2 gars yi dañuy waaj waaj lépp ñun pare waaw ñu dañuy pare lépp taxaw di xaar ñun lam dara duñ ci ci biir combat bi maanaam ci préparation yi non non lépp laay pare damay pare bëri damay pare xeex lu ñëw nag ba ñëw fekk mën naa ko mën naa bëri mën naa xeex am naa doole am naa fit ragaluma dara booy Malika loo koy préparé ak loo koy waajal pour le 8 juillet arène nationale ak sans production booy Malika man yàgguma si laam boo xoolee ay 2019 la ñew ci lam xam 2019 2020 la ñew ci laam yàgguma ci lam xam am may mark sama point nak ba tax mun ma jël mais nag sama nata wala sama nawle ta ma cee bëgg wone sama bu baax ci combat bi barke muhammad combat bi dama cee bëgg wone sama bu baax baax ba ñëpp xam kat moy Boylo. jaare sa gaynal yi Boylo amna combat. waaw man dama woo sax na ma am ko combat mais loolu la bëggon ku ñaan loolu la dama ñaan yalla dama ñaan yalla nu may wona mbeur am ko combat légui nak loolu la bëggon moo loolaa bëggoon te am naa ko te xam ne instant bii day mbër moo xam ne dafa xiif man bii tubaab rek laa xiif. man ndam du ma ko doyal. taay laay. ah moom tamit boo xoolee combat mu jógee c'est combat bi mu ndam ma ko dóor suñu kër xal du ma doy damay war damay war yenn teg yi man maa bëgg ndam. waaw ndam la ma jaral jàlloo ko kenn xam naa. mais c'est bi mu ma adversaire maa ngi sa toog waaye ñooñu du man te man du ma ñooñu lam ku nekk si bopp ku ne la nga mën ku nekk la ngay ku nekk la mën booy Malika du ñëw bëreel moom du ñëw du moom du ma ñëw ñu bëreel déedéet ku nekk ñi nga bëri adversaire am ñu bëreel la man ñi nga man la te bu ñu bu ñu bëree ba pare di nga xam ne man du ma moom suñu ñeent du moom. gëm-gëm ni yaqin da koy daan. waaye du ma ci am xel ñaar sax billaay walaay mu ci xel ñaar naa fi moo jàpp mu jiyee. Eh, mais ndax daan booy Malika ndax lu yomb la booy Malika néewul doole booy Malika mën na bëre booy Malika mën na xeex. man maa néew doole xam naa man xale bu ndaw laa barke Mouhamad Rasulullah 99 la juddu xale bu ndaw laa billahi wallahi sama akar mo gëna a gis xale booy la boy la de billahi wallahi tayo mo bu neex ma ko gëgoon la samay mag wala sama rek nga gis boy bu ndaw laa dama téla iya yalla yàlla mooy bi nag te iya, yem ya, iya rek waaw kar ma sala sama papa ko gis xam ak gis sama yaa xam ne man carrément waruma ndaw la fa déma nag xam nga yalla koy walé yoon rek ñu bëgg affaire yi nek suñu ginaaw frère ay ñu dagalo sama idole sama lepp dagalo sama idole la sama lepp xam nga ci ginnaawam la nek ba bëgg affaire yi fonko xam nga ak ku ci melni ne ñoom doy la xasse man ñu la doon top di leen top di sàcc ñoom lu ne ak sama mag bax yaay ak usine doole ñoom la doon top daj ñoom lu ne ba tay ji ma bëgg affaire yi xam nga waaw am ci ay bëri mbër mu ne man mbeur mu ne moy nak ci arène fi bari bari day naa ba part fu ne barke moo xam bari yëpp bari na ñoom ba part kon man dara jaaxatu message bi man la ma yéem dama ñëw def li mu war rek jël ko ñibi dara jaaxatu message bi lu ma def rek man war na ko def ndax xale laa da lépp jig na ma kon nga tollu ci waccay bi sa digënté ak euh, Boy Malika pour le 8 waaw noy ngi waaj noo ngi waaj comme ni ko doon waajoo rek ñun combat duñu bàyyee danay waaj di doli chaque combat danay doli renforcé ndax duñu dem ci géew ba arbitre suñu bëri deux minutes trois minutes commencé lase sa adversaire jéppale sa adversaire yàb la sa supporter jéppale non bi une minute danay baax si ñun une seconde day baax si ñun trois minutes day baax si ñun dix minutes day baax si ñun. Ah, mën na combat à l'usure. <laughs> non combat bi du ak sax. combat bi moom du à l'usure moom. li muy def mom makay def man su ko defé ñu ñaar du yag barke Muhammad Rasulullah ni may def man mu koy def ñu ñaar bu ko defé comme abdou yag yàgg dañuy bëri jóg ci falaak fayda te dina neex te bëri bu neex lay doon nak dañuy bëri ba ñep jóg man ma la wax li fi kay billahi dañuy bëri ba isaab bi jóg jox la ñep def ni ma la wax lool. lool lañuy xaar moo tax Sam tëgg leen mais arbitre siffle gën seen digeen dag jengi lu fay xew da ngay dem wala ngay xaar wala qu'est-ce qu'il y a. manu musuma adversaire musuma am adversaire arbitre siffle ma taw di xaar damay wacc sama tan dox sa kaw nga dox nu daje wala mosuma xaar adversaire ba tey xaar adversaire pour lan. des fois day am différence. non man man différence man sama bopp man ñoo mel laa mel moo tax xam man li ma mën si lam xam ko nekk ci nekk ci man moom ma lay appliqué. lu néew ci man moom du ma ko jéem a appliqué ndax néew ci man xaw ma ko man li nekk ci man ma mën ko xam ne moo ne sama deret ji moom laa nam xam nga ko moom laay def man samay tànki bàyyi laay jaay ñoom sax loo fi nu jaar doon samay ma ci lépp ci ñoom laay jaar lu nu bàyyi ci lam koy jël si barka Muhammad inshallah luñ bay mu ci lam sama papa da fay jaar xam nga sama papa bay gor Pape fay yalla na yalla yeeram da fay jaar xam nga ñu beuri dañ fay jaar seen lam fu tru bawal dem da naka ñom nako fi yóbbu mais seen lam da xaw échec ko ñun ñuy seen dom na ko relève bawal noo ko indi ta ci kattanu yalla sama papa yoy lu fi bay won ma jël ci billahi wallahi boy Malika loo koy yóbbante mu ngi koy mu ngi lay seran su ma ci yow dina jaar ci mom boy Malika non ñepp ben nan suñu seen nit la suñu lepp la du waxantu du ñaaw du lef ndax chaque jour voilà non moom ma ngi pare ma ngi pare moom na la ci du xam rek sama ruq rek mbër mu ne li ngay pare moo la doy man moom du man moom du ma ñaax kenn si pare ku am pare pare way xam man man may pare moom moom ku pare wutam bu ñëw daal jëb yoon ñibbi mais man man may pare man du ma ñaax kenn naa ko parel ku pare wut nag bu ñëw moom lu toos yow lay jógee man moom maay pare te maay waaj ana samay mbokk bu baax baax baax baax samay mbokk maay waaj moom sa diggante ak sam production tey muy ndaw jël ay millions yu bari investir ko si yéen

man laam yi mu tëg yëpp nag xam ma ne grand combat yi mu tëg mu am doole ma ne grand combat li may dugal du nga dugal ah, dégg naa ay ñu ku ci dàq mobilise dañ lay teral mën na xam nga foofu Mouhamad kon dinañ ma teral ba saa mbokk doyal sëkk man kon dinañ ma teral ba saa yi mbokk bawol bawol yi ni fees lam ci del ak waa Caaray billaahi sunu mbokki bawol bawol ak ko noo mën a supporter te mën a ñëw estaat te mën a jënd seen xaalis def ko si bi maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma ñëpp du autorité bawol yi nag laa ñu njëkk woo pour jàpp si xam nga ku ci mel ni Jib Thiaw doon koy woo mooy sunu maire Réfane réew maa foofu fépp mooy sunu maire xam nga Amath Dieye bu tubaatul waaw gis na li muy def nu mu koy woo si combat bi bu baax a baax a baax ak sunu maire Thiaré bii na ko ciy bu baax a wax Amath Ndiaye waaw ko koy bu baax bu ñu jàpp si combat bi combat bi foog gaa yi jàpp si bu si jàppoo ñun du baax suñu ndax xamuñu mën noo boole di entraînement jël sunu moyen di ko jënd ay billet di ko jox booy yi xam nga defar groupement def lépp loolu daa métti te mbër mu ndaw li lay nanu gaay dimli ngir yalla xama dinu japp suñu loxo ñu day wër yalla sa mo beure pare barka muhammad bu bëré ku ñaan xaaliss di ñaan lu muy baat serigne ni di ñaan yalla di ñaan lu ma dugg sama poste déssé ko day pare pare def ni faxasu euh, autorité ñew taxaw seen dom moy boylo waaw autorité ñu japp lañu baax baax baax rawati na bawol gën dekk ñun awul leen du bawol bis bu reuy ngay beure de. waaw bis bu reuy té nagu reuy nagu reuy bis bu reuy de waaw kon ñu nak bis bu reuy ñu jëm na ñëpp jëw téru xam nga ñëpp gungenu suñu mbokk suñu wa koñ ñun ñëpp gën ko suñu waa ko ma paay caaro suñu paay caaro yëpp ñun ñëpp ñaan ak paay bawal yi waa seew sama mbokk yi sama nijaay yi sama maam yi na ma ñëpp ñaanal ak waa réew ma fépp ku ma ku rek ak ku xam rek foo nekk na ma ñaanal bu baax a baax ci ko bi bu baax a baax ñaan dama ñëpp jàppale sama waa koñ waa caaro géej sama waa koñ sama maire koñ yi bàyyiwuma kenn kenn kenn kenn xam nga sama di sant sama président fan si club ak xam nga di sant sama 100 pour cent boole ak bi gars yi booy yëpp maa ngi san booy lu sans frontière bàyyiwuma kenn groupe boobu ñëpp maa ngi san xam nga Seex ak sama góor gi bàyyiwuma kenn gars yi ñëpp ñëpp maa ngi san bu baax. le huit ñu préparé ñëw jàppale. ñëpp maa ngi leen woo si si bu baax surtout waa waa Géejawaay waa Géejawaay maa ngi seen bàyyiwuma kenn. waaw ñoom Mbaye Mbaye sama grand frère sama lépp mbay sama grand la. mu amee combat rek dof moom. sama grand frère la Mbaye bu ma lu tax ñoom di yële lam su leen daana kon ñoo tam dugg lam bëgg ci lam dugg lam xam nga mbay maa ngi woo bu baax di woo patron Ibra laat waaw di woo laat ak laat maa ngi ci woo ba ñoom Bada xam nga paa yi nekk foofu yëpp maa leen di woo baa daami na ñoom ñëpp maa leen di woo ñoom ñëpp maa leen di woo maa ngi woo ñëpp ñu jàpp si combat bi fépp waaye nekk maa lay woo nga jàppale sama combat bi di suñu waa woo Kasoor ak Kasoor du ma leen bàyyi waa Medina maa ngi woo Medina gépp Kasoor waa ba xam nga mu woo Mor Thiaw bu baax sama doom rek maa ngi koy woo bu baax a baax a baax a baax di waar sama Malick Gakou kii maa ngi koy woo Mor Tall sama Malick Gakou maa lay woo ci combat bu baax a baax nga ñu jàpp ci xam nga di woo gars yi yëpp Saliou Ndiaye sama ngeer sama doom nday yi ñu ma xam ne xaaj gars yi yëpp maa ngi woo ku ci mën a jàpp xeebu ma dara san sama sama boy yi may àndal ñoom leen kaana maa ngi sant bu baax di faada xam nga booy sama booy koñ bàyyiwuma kenn sama koñ booy yi may toog bàyyiwuma kenn kenn kenn ay ñoom Pape Kane Racine Amidou Fallou ma kenn daal maire koñ ba moom bàyyiwuma kenn ma kenn borom bi maa ngi sant ñëpp suñu waa ngi sant jigéen ñëpp suñu jigéen kër gi ñëpp maa ngi sant waaw di wax wax yi na ma jàppale bu baax a baax baax di ñaanal sama benn paa bu doon ñaanal fan yii daa génn àdduna quoi Touba Mbacke yooyu dëkk maa ngi koy ñaanal ko àjjana bu baax a baax a baax baax di ko jaale sama grand frère daggaloo maa ngi koy jaale bu baax ak suñu entraîneur bi xam ne fan yii temps yi daa wàññeeku pira la noo ngi jaale waa caaro yi xam nga te affaire na trop quoi suñu combat yi moom dina ci feeñ bu baax a baax ndax ñu ko doon jàppale ne ku yërëmoon la ku bëggoon suñu bés la billaahi ko ñaan yàlla xaare ko bu baax a baax baax a di woo Alsan Alsan maa lay woo ci combat bu baax es maa lay woo Père Père Diouf maa ngi lay woo bu baax a baax a baax ci combat Père Aziz maa ngi woo si baax ci combat bi ngeen jàpp bu baax a baax per Jamil xam nga ñoom ñëpp maa leen di woo baax waaw maa ngi woo paa yi koñ bàyyiwuma xam nga paa yi koñ bi billaahi wallaahi su ma amee combat danay jël seen di dugg ci koñ bi nii di wut xaalis bi xam nga loolu nag boo sëñ Modou ku ci mel sëñ Modou Aminta Ndiaye ñoom ñëpp ñoom ñëpp maire koñ ba daal bàyyiwuma kenn fu maire ne ci koñ ba bàyyiwuma kenn kenn kenn maire yi borom may ñaanal mbër am ana combat ana combat yi di ma ñaanal ñëpp maa leen di woo si combat bi am na combat la wi maa leen sant bu baax yow di la gërëm xam nga di la jaajëfal xam ne li yombut ñun moom yàgg noo invité dalal nu si télé dalal nu si rajo dalal nu fu ne kon nag ku nekk xale a ah, nga koy jàppale bu doon mag bu la fàtte du góor ñun du la mos a fàtte si lépp noonu la ñaanal jàmm di la ñaanal jàmm bu bëri bëri di ñaan sama grand frère Mbaye jàmm bu baax a baax daggaloo di ko ñaanal jàmm sama mag yaatu naa te sama yaay nag ceer sama yaay maa ngi koy sant bu baax a baax ceer man amuma lu dul sama yaay sama àdduna mooy son sama yaay moo tax mooy son ndax gisatuma sama papa sama yaay la ma bàyyi sama tante ak rak kon maa ngi sama yaay bu baax sant sama tante aw ma fayam sama tante day son ci man lu lay daj ci man mook sama yaay ak sunu waa kër sunu maire kër yëpp maa ngi sant bu baax dina gërëm di sant sama maire Fatou Seye sama yaay bu baax la ci man day yëkkati xaalis bu bëri di ko def ci man ak yaa Dior Mim Ndiaye ñoom ñëpp maire Khoudia bàyyiwuma kenn maire ba bu ma sotoon ma ma ñëpp ay maire Fatou Seye bàyyiwuma kenn sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp di